alamin wa sallallahu wa sallama ala nabihi karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy topp fii seen seen Rafah TV international seen émission xamle di ko ànd ak seen mbokk Ibrahim Kebe ma ngeen di nuyuwaat bu baax a baax te di leen ziar di amaan mbégte bu baax àndaat ak yéen fii ci seen émission xamle ci jàngalante gi ñu daan def ak laabirante gi di jégalu bu baax it euh, euh, géej gi ndax am na émission boo xam ne jël jëlal nañ ko lool nag xat-xati jamono ak ñàkk a toog rek moo ko waral tey ñu ngi am mbégte bu baax di ñëwaat ci tomb bu am solo ndax ñaari émission yi jàll ñu ngi doon waxtaan ci yàqute gu siiw bi nekk ci jumtukaayu bees yi lu ci mel ni ci réseaux sociaux yi eh, ak yàq gi mu yàqu suñu temps ak nit ñi ak sàggan ak eh, nit ñi it nan la war a a fexe ba di jëfandikoo jumtukaay yooyu te du ko yàqal dara xool nañ ci lu yaatu def ci ñaari émission tey nag dañuy ñëw jublu feneen ni ab boo xam ne bu am solo la ci dundu jullit bi ab jullit bu nekk war na koo xam rawatina nag ci jigéen muy lu aju ci laab ndax kat diine jëpp mën naa ne ay ndigal la ak i tere ndigal yi da caa bokk julli woor aj makka joxe asaka ak yeneen ci aju yëpp rek julli moomu nag bala ko nit ke def faaw laab fii mën na ko faaw mu laab laab googu nag yi ñu laabe yu bari la léeg-léeg nit ki laabe ci am toj mu mel ne nit pour ndox wala mu demoon day laab léeg-léeg nit ci am toj mu gën a mag mel ne jaxasoo daa wara a laab léeg-léeg nit ki laab gis dereti mbaax maam régal ci bu dee jigéen daa war laab ak yeneen yoo xam ne mun nga ko natt ci sama yoo xam ne bu day bu jaxas bu dalee nit ki pour mu mën a julli faaw mu seet ca loolee tey nag ñu ñëw ci lu aju ci laab boo xam ne jigéen ñi la gën a soxal mooy lu aju ci wàllu xayd xayd ñu koy wax euh, mbaax moom gis mbaax gis règle ak ba tey jigéen gi bu amee doom ba noppi deret jooju mu gis nan la mën a nan la ko mën a saytoo nan la ko mën a méngaleeg yeneen fexe ba jan jamono la war a mën a julli ak jamono lañ ko wax toogal bu julli ni noonu jigéen yi muy gis baax maanaam buy buy gis règle deret baax nan la mën a fexe ba di saytu deret jooju ci ni ko lislaam diglee ak nan la mën a dëppalee ba du yàq diineem du yàq ay jaam yàlla tomb bi nag di tomb bu am solo bu mat a xam euh, buñ gisee ñu bari ci suñu jàngalekat yi buñ puus ci tomb yi ngir xëy na lim gën a soxal jigéen ñi ak lim gën a nekk mbir yu biiru waaye nag nañ waxee leen ne lislaam euh, bu dee lu aju ci diine moom ak xam euh, liñ war a xam moom foofa teggil na la kers bu bëggee jàng loo war a xam moom kersa wuru laa yóbbu ci nga ñàkk koo xam waaw borom matxaratul xulub di wax naan amal xaya zamimu falmaaniu min taxyiri munkarin aw suali an amrin min ad-diini wa nahwi dhalik fa huwa llazi udda min al-hali nee na eh, kersa lu baax la waaye nag am na kersa fu mu baaxul léeg-léeg kersa goo xam ne dalaa tee tereelu lu ñaaw ñaawteef gis nit ki di def lu bon nga xam ne lii lu bon la nga am kersa tuus ko tere loolu baaxul wala kersa gu la tee xam sa diine ñaari kenn du ci kersa loo war a xam xamoo ko da war dem jàng ko loolu wax na man ki dim ko rusa laaj wala nangam ak nangam déet kon loolu tax na tey ñu gis ne mënuñ ko ñàkk ñu waxtaane ci tomb bi andi ci li ci nekk ci lislaam li ci digle ci fiq ñu war ko xam tomb bi nag ñu bari réere giñ ko réere ak jàppe guñ ko jàppe lu rëy tax na lu leen ci ay jafe-jafe surtout yenn jigéen ñi nga xam ne xamun nuñ koy doxale am na ñoo xam ne jigéen ñi maanaam xamun nuñu xoolee seen règle seen baax bu ñu gisee deret baax nan lañ ko mën a saytoo ndax loolu mbir la mu simple moo xam ne yàlla moo ne ko bindaale kon loolu amut leen lu fi nekk lu ciy seenewu da nga la ca des mooy yow nga xam lu ko ba su la dalee nan nga mën a fexe ba laab maanaam yan jamono nga xam ne jamono ji bu dikkee moom dootoo julli dootoo woor bu jàllee nanga parce que gis naa am na ñoo xam ne xam naa jàpp nañ ne ñoom buñ gisee deret ci bis bi donte dagg na bis bi yëpp dootuñ julli wala nangam am na ñoo xam ne sax mën na leen yóbbu ba yàqal leen seen seeni njàng wala seeni liggéey te yëfi mbir mi lu simple la lu simple simple buñ ko xamee ni ko lislaam jàngalee njàngale bu leer da nga xam ne lii lu yomb xam la aajo woowut niveau bu kawe pour ñu xam la nan nga koy xamal la nan nga koy jëfandikoo am lépp am xel la rek ak quelqu'un te lépp danañ ci dugg xuus ci bu baax ba jàpp nañ ne képp ku ko topp te jigéen ak góor it danga ko xam baax ndax yow mi góor nga ko xam ndax boo amee soxna xamoo ko nga xamal ko ko noonu boo ko mënee xamal say doomu jigéen ak bépp jigéen bu ko aajowoo te mën koo xam war nga ko mën a xamal ndax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa jigéen ñi dañ daan ñëw di laajte surtout yu mel nii jamono ji nga xam ne jigéen foofu jamono jo dafa amoon ay jigéen yoo xam ne ay borom xam-xam lañ mel ne suñu yaay Aïcha ak borom jigéen ñi soxna yonent yi nga xam ne xam-xam lool jigéen ñi ñoom ñoo daan jàngal jigéen ñi yenn mbir yi te soxal jigéen ñi ndax ñoom ñoo koy gën a xam dañoo ciy gën a ñi mee wax léegi nag bu ñu demee ba diina ji nit ki day war a wax mbir wala day war a jàngale mbir di ci daw kersa ba du ko jàngal dama ko war a jàngal ren musiba waaye lii dañ ko war a xam kon képp ku jigéen na nga def ak góor góorlu ci loo xamul lu wàllu diina lu aju ci sa diine nga jëm ko xam tey nag bu ñu doon ñëw dañ commencé ci ay par tomb lañ koy def waxtaan ci lan mooy règle yan deret la ñuy jàppee deret règle deret jooju yan yan sart lañ ci sart mu doog a doog deret rek ndax deret joo gis rek deret règle lañ koy jàppee wala déet ak ndax lépp lu génn ci jigéen ci kanam jigéen dañ koy jàppee règle wala déet ak li génn ndax bu génnee ban diir lañ war a xam ne fii la war a yem ak kañ la war a mën a continuer jullee ak yi ci aju ak jigéen gu ndaw ak yooyu yëpp maanaam kenn ku nekk yooyu yëpp danañ ci xuus wax ci insha allah ni ko noonu jigéen am doom dara jëmi gis jan jamono la war a toog ak fan fan mooy ba foo xam ne fa eggee war na commencé jullee woo yooyu yëpp danañ ko mën a ñàkk xam da ci yóbbu nit ñi ba daanaka léegi da gis ku toog rek du julli def dara waaw ku toog rek du julli def dara dëgg la am na mbir yoo xam ne mënoo cee xuus yow mi góor xale la tey boo doon digal ay julli jigéen ñi julli waxtu bu waxtu jot nga gis ku julli mënoo taxaw naa ko dama julli ndax ma naa am na dafa nekk ci période bis waaye nag jaaru na mu xam ni nga xam ne noonu la ko lislaam digale jamono jamono dem na ba egg ci nit ñi di jëfandikoo ay application li mel noonu waaye yooyu yëpp baax na waaye nag est-ce dëgg-dëgg ni ko lislaam digle application yi mën na la ko xamee ne noonu ak it application yi ñu ko def ñu ci ëpp ay tubaab lañu doon wala ay ñoo xam ne mën nañoo bañ a xam diine ni ko diine jàngalee bokkut ak ñoom nañ koy gëm nañ koy doxalee ak fi nga xam ne bu fa yemoon te yan julli ñoo la war yooyu loolu application loo ci xam kon nañ delluwaat ci diine jàngaat ko njàng mu leer bu ñëwoon ci di xamle lan mooy dereeti mbaax jégg lu baax na ci wax ji mooy jëpp deret joo xam ne dafa génn dafa génn ci kanamu jigéen ñu waxee kanam ni jublu mooy sawukaayam te génne boppam te kam génn nekk koo xam ne baaxoo naa ëmb maanaam toll na foo xam ne mën naa ëmb ñetti sart yi faa mu daje na nekk deret yu génne ci kanamu jigéen nga xam ne kon bu bu génne woon feneen beneen génnukaayu bu dul génnukaayu kanam ba moom desu ko jàppe deret xam génnee xam génne na nekk koo xam ne baaxoo na am nekk jigéen boo xam ne mën na am xale bu ndaw boo xam ne fu am wala mu nekk mag jëmm moo xam ne weesu yooyu kenn du wax yooyu yëpp ay dana ci si kon sarti faaw nekk na nekk deret na génne boppam bu fekkee deret yoo xam ne daa am lu ko génne kenn du ko jàppee règle deret yoo xam ne daa na lu mel ne tey dereti feebar nit ki daan daa feebar deret génn ci moom kenn ko jàppee règle wala nit ki daa gaañu deret jigéen gi loolu kenn du ko jàppee règle wala xëy na jigéen gi daal sëy jaxasoo deret génn ci moom loolu kenn du ko jàppee règle kon deret yi ñu jàppee règle mooy deret yi nga xam ne dafa génne boppam ba mu it na génne fa mu war a génne maanaam na génne ci kanam kanamu jigéen bu fekkoon deret yoo xam ne dafa génne ci eh, beneen buntu loolu kenn du ko jàppee règle kenn du ko jàppee règle waaw loolu kenn du ko jàppee règle noonu bu genne woon ci ab bën bu fekkoon nit ki dañ ko opéré ci biir bi wala wasa mu am bën bën mu ne fa génn loolu kenn ko jàppee day kon yii ma la wax faaw mu nekk na noonu deret di génne boppam te génne ceeb buntu euh, turukaay ndox ba te tam génn jigéen gam génn nekk koo xam ne daa war a baaxoo na ëmb mën naa toll na fi mën a ëmb yi daal bu dajee deret ji moom dañ ko jàppee deret ci léegi léegi nag am na foofu ay yenn sew-sew yu ci am mooy léegi-léegi jigéen naan euh, sa euh, garab goo xam ne day génn gis deret wala mu naan garab goo xam ne heure bi mu a gis deret dootu ko gis yooyu ay waxan bu fekkonte jigéen gi dafa naan ay doom dafa naan ay doom sam tey suba daa war xam ne ne man suba daa war a gis règle wala dafa ci période bu mu war a gis règle daal di naan ay doom ba du gis règle su boobaa dañ koy jàppe ko laab koy jàppe ko gisuti règle wuute nag bu ay doom ngir gis règle maanaam egsi gu fi mu war a gis règle waaye ay doom ngir gis ko su boobaa nag ko naanee it man doonte mu ngi gis ne dañ koy jàppe ko ba noppi ñaari masala yu xaw jaxasoo waaye nag boo ci bàyyee sa xel maanaam bu fekkoon tey dafa naan ay doom ngir bañ a gis règle bu ko naanee bu gisul règle dañ koy jàppee dañ eh, bu fekkee da ko naan nag ngir gis ko ba tey dañ koy jàppee ku làpp lu dul ne nag dafa naan ay deret ay doom ngir gis deret te jamono jam ko gis nekk deret jamono ju mu waroon a gis règle su boobaa nag dañ jàpp ne deret ji mu gis règle la kon loolu nañ ko baxel bu baax baax ndax day am léeg-léeg day am bu loolu weesoo yan jigéen ñoo mën a gis règle yan jigéen ñoo mën a gis règle yan jigéen jigéen ñi dañoo séddale ko ay xaaj bi tàgg ne jigéen gu nekk mën ngaa gis dara dañoo xam ne jigéen am na foo xam ne bu fa xasee ba toll fa la koy gisee am foo xam ne bu fa xasee ba toll bu xasee ba toll ci juróom-ñeenti at jigéen bu xasee ba am juróom mi am juróom-ñaar fukki at mën na koy gis juróom-ñeenti at neuf fa ba baa mi am juróom-ñaar fukki at mën nay gis deret waaye nag bu gisee deret avant amee am na juróom-ñeenti at wala mu gis ko ginaaw bi mu amee juróom-ñaar fukki at ba noppi loolu kenn dootu ko jàppee deret légal amul du wut maanaam mësab mali moom xat an lañ la wax maanaam deret ji mu gis avant muy am juróom-ñeenti at ak deret gis ginnaaw bi mu amee juróom-ñaar fukki at ba noppi kenn dootu ko léegi nag mu des deret ji mu gis bi mu amee juróom-ñeenti at ba ni mu amee fukki at ak ñett ak deret ji mu gis bi mu amee juróom xam nga wax naa ne la juróom-ñeenti at ba juróom-ñaar fukki at mooy diggante bi nga xam ne bu gisee deret danañ ko jàppee légal waaye nag ba tey amaan na ay détails ci biir mooy bu amee juróom-ñeent at ba ni muy amee fukki at ak ñett moom xale bu jigéen ak bu amee foofu dèjà jom fa gis maanaam dañuy laaj jigéen ñi nga xam ne am nañ expérience ci yàgg xam nañ mbir bu ñu jigéen ñi xool daal ne lii de la maanaam dereti mbaax la wala ñu xool ne ah ñu sikk sàkk nañ moom la wala ñu wuute ñi ñu wax li ñu dañuy jàpp ne deret règle waaw maam xale bi bu amee juróom-ñeent at ba ni muy amee fukki at ak ñett ak bu demee ba doon mu am juróom fukki at bi ni mu amee juróom-ñaar fukki at laaj ñi ne ah deret bu baax la de wala ñu sikk sàkk ci rek wala ñu wute ci ñu ne ah deret du deret bu baax la dañuy jàpp ne deret bu baax waaw kon buñ ci sikk buñ ñu ne sikk ñu sikk sàkk wala ñu wute ci rek dañ koy jàppee deret rek mooy deret bu baax mooy mbërëg rek ñu wax na bu fekkee dañ la laaj ñu ne du moom ñu jàpp ne du moom kon jigéen ñaa ngoog kon jigéen bu amee juróom-ñeenti at bu ni mu amee juróom-ñaar fukki at mën nay gis règle afaam yi am juróom-ñeenti at ak bu amee juróom-ñaar fukki at ba noppi foofu lu mu gis kenn du ko jàpp def règle léegi nag bu amee juróom-ñeenti at ba ba amee am fukki ak ñett ak bu amee juróom fukki at ba ba amee am am xam-xam ci mbir mi kon ñu ko yàgg gis bu ñu nee lii deret règle waaw wala ñu sikk sàkk wala ñu bu ñëwee moom nag ñu ne du moom noonu lañ koy jàppe léegi nag ginnaaw bi mu koy gis niki noonu am na ay ay détails yu sew yu ne ci biir ban diir mooy diir bi gën a gudd ci jigéen diir bi war a gis deret règle ak ban diir mooy diir bi gën a gàtt ak bu fekkee deret ji day ñëw ak dagg nan la koy calculer ak bu fekkee dafa ñëw rek continuer benn yoon nan koy calculer ak bu fekkee ne masan tey dafa am doom di gis deret deret jooju nan lay calculer ak yu mel noonu yooyu yëpp ay leçon la yoo xam ne ngir bañ mu xaw a naqare jàpp dañ koy def ay leçon yu gàtt par par raison kon tey daal ci tënk li nga xam ne mooy nekk bind bi mooy deret régal mooy deret joo xam ne génn na ci kanamu jigéen jigéen gam génn nekk jigéen ku mën a am doom te deret ji génne boppam génne boppam bu ñu ko waxee mooy nekkul deret joo xam ne daam lu ko génne bu dee deret joo xam daam lu ko génne lu mel ne nit ki daa say deret génn wala mu daanu gaañu deret génn wala mu feebar naa ni doom masalan deret génn loolu kenn du ko jàpp deret kon loolu sart la na génn ci jigéen gu baaxoo am baaxoo buntu kanam feneen fu mu kenn kenn du ko jàppee deret waaw bu ko opéré ci biiram wala masalan fu mën di doon bu génne deret duñ ko jàppee donte sax génnukaay dafa sakk donte dañoo yeneen génnukaay dafa sakk dafa am beneen bën-bën ci yaramam génn deret ko jàppee deret wax nañ ko léegi nag ñu waxaatoon ne bu naanee ay doom ngir gis règle wala mu naan ay doom ngir bañ koo gis bu fekkee dafa naan ay doom ngir bañ koo gis moom dañ koy jàppe ku laab rek mooy kon fan yi la war a gis régal mu naan ay doom ba du gis régal ci fan yooyu fan yooyu day jàpp dañ koy jàppe ku laab mën nay julli di woor di def lépp waaye bu fekkee dafa naan ay doom ci fan yoo xam ne wut a gis régal ci fan yu mu ko wut a gis mu naan ngir gis ko boobaa nag dañ koy jàppe ku laab ba noppi dara gis du tee day jàpp di julli di woor léegi nag mu des benn sew sew mooy bu fekkee dafa naan ay doom ngir gis ko te fan yam ko gis nekk fan yi war a amee gis régal su boobaa nag ci dañ naan ko kon léegi dara ji nga gis dara régal la yëpp waxoon naa ko ci jëlbeen waxaat ne jigéen ñi dañu séddali ko ay xaaj foo xam ne fi lay tàmbalee gis règle ba xam koy baax yamee gis mooy bi mu amee juróom-ñeent fukki at ba ni mu amee at na koo am juróom-ñeenti at ba ni mu amee juróom-ñaar fukki at mu ba ni muy weesoo la juróom-ñaar fukki at maanaam dama amee juróom-ñeenti at ba ni mu amee juróom-ñaar fukki at diggante boobu li mu gis dañu ko jàppee direct règle amee juróom-ñaar fukki at ba noppi lam gisaat foofa kenn du ko jàppee direct kon loolu xam nañ ko léegi nag diggante bi mu gis règle ba tey ba juróom-ñeenti at ba juróom-ñaar fukki at diggante juróom-ñeent ba ñett ba fukki at ak ñett ak diggante juróom fukki ñaar fukki at foofu deret ju fa gis dañuy jàpp ne dañ jigéen ñi bu ñu nee deret régal ñu gis ne deret régal bu ñu nee du moom ne moom kon xam nga kon tënk baago bu ñu fi ñëwaatee nag beneen jataay incha allah waxtaan ci yan diir la koy gis nan la koy gisee nan lay mën a xamee nii lii régal la wala dereti sa jàngoro la ak nan la ko lislaam digalee ci bu gisee deret deret di continuer nan la war a def yooyu yëpp topp leen ci émission yi di ñëwaat insha allahu taala kon dañuy yemale fii kàddu yi wax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam ala nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain